guy gi ñu gën ko xam ci roi du sampi mu bokk ci écurie Mor Fadam moom guy gi am na 15 combats 12 victoires ak 3 défaites guy gi daana na ñàqum daan Robert Junior daan coppet daan jagar jagar Njagandooy Tyson Zarko Bébé Saloum Mbaye Diouf ñooñu ñëpp guy gi daan na leen daan ama daan bazoka ki mu mujjee di Ama Baldé

ginnaaw ba sant yàlla julli jërëm sant sunu ñaari waajur nuyu sunu sëriñ Thiès Seck borom ndigal di ñaan Sénégal yaa na fi jàmm yàgg te wër nuyu suma yaay Waré Sarr sama am lu confiance di incité di woo sama supporter yëpp yëpp ñëpp ñu bëgg guy gi ñi may bëggee di leen fàttali di incité waat surtout nag surtout surtout li ñu incité ci koo may booleel zëri lii pour combat la kat bi la koo booleel bu ngeen bëggee ma dajeeg Ama Balde deux ngay de nga envoyé ko ci vingt six cent pour Ama Balde bu fekkee da ngeen bëgg ma dajeeg Zoss da ngeen def 3 26 148 bu ngeen bëggee ma dajeeg Tafatine ci koo bool pour le 4 avril bi la da def 6 nga envoyé ko ci 26 148 pour ma dajeeg Tafatine ko lii pour le 4 avril bi la surtout nag surtout lii moo tee ñu tirage mooy pour la datu 4 avril bi incha allah di wax sama fans yi maa leen di xaar man xam naa ne nam ngeen ma namm naa leen. di jégalu nag lépp loo xam ne guy gi def na ko ci erreur mi ngi jégalu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp man nag je suis paré. tournoi bi ñoo ñoo ko tëgg. RTV. juum wan ma ko. NTNT. TNT. doo ko fàtte. non TNT TNT. TNT def comme Nifri nii rek comme ça doo ko xëy doo ko fàtte. ah day plané quoi. non population bi yëpp xam lan mooy TNT. waaw TNT comme mimérique la boo xam ni yàlla dafa def RDV moom kenn ku ne xam na ni c'est la télé nationale télé la boo xam ni wala ak rajo boo xam ni bu ñu yëngu ci wàllu matériel mais dañu ñoo xam ni tey seen lépp dañ koo teg ci sutura quoi teg ci ci xam nga qualité liggéey moo tax tey ñu mérité la ñu am. du ay comme ça ay xëccoo dañ koo mérité yàlla def ñu gañ a TNT bi te yàlla def tamit ñu war ko def benn publicité boo xam ni jaarale ko ci ñun TNT bi mooy képp ku ku am reseau bu war a xam ni numérique bi yow yow yow nit ñi dañ lay ci ñoom lay jógee ñooy joxe signal bi kon yaakaar naa loolu nag ñoom ñoo ma gën a xam sax ñoom niñ koy defee mais ci gàttal quoi man li ma ci jot a xam di ñaan yàlla rek ñoom liggéey bi ci Sidi di sumba rek ak ñi ci nekk ñëpp kenn bañ cee am négatif ñëpp am ci positif ba mu loo xam ni tey bu ko bi ni mu ko bëggee woon dina kawe njottam ñu joxaat leen leneen ñun loolu lañ ci bëgg quoi réussite réussite gi nag mooy fula lañ ciy def fayda ba ñun niñ ciy def nii ñooñu bëggee ko noonu parce que tamit 100 pour cent bépp la waaw 100 pour cent bépp ci ñun la. guy gi fii am wala day voyage. waaw techniciens yi waxtaan nañ ci mais xam naa dinaa dem pour un mois incha allah ñaan naa leen ko nee nañ ma garaawul mënuñoo may mbër mu nekk un mois dinaa dem pour un yaay maa ngi dem waaj bu liñ moo liggéeyal ak li ñu ma teg suma yaram rek incha allah dinaa ko tegu pour ñëw. yaa pour yokk wala pour wàññi. li ma dégg ci Facebook beeg sama fans yeeg ñëpp mooy loolu maa ngi wax sànq naan caama dégg nga nit ñi nee nga wàññi repas yooyu kon defe naa dégg na loolu repas yi léegi dañ koy wàññi di jël di lekk par jour quatre fois bañ a lekk comme ni ñu doon lekkee par jour. dégguma di lekk par jour quatre fois bañ xam daan nañ la ay mais léegi dañ koy wàññi par quatre fois. quatre repas par jour. xam nga ci dara amee dafa nga xam sa mbër yooyu moom de de bien la quoi. alimentation bien waaw yooyu baax la. dafa war a ànd ak TNT bi vitamine non liñ ci indi lu bees parce que nee naa guy du ay mbalak du caaxaan dina ñëwaat indi lu bees tax parce que dama bokk ci làmb quoi parce que ñoo xam ne tey boo amee lu la métti rek Sénégal da ngay yëg ni yow ñii am na lu leen métti kon sama combat bi passé bi ñu amee déception stade bi kenn yënguwul kon nga xam ne am na lu may def ci xolu doomu aadama kon lu may defate rek du man rek du man rek kon war naa sóoraale bu baax quoi. ñoo xam ne samay ginnaaw lañ nekk tey yaakaar ak ñoo xam ne samay ginnaaw lañ leen laal wala ku ma laal duñ am lu leen kon su may defati rek war naa def loo xam ni exemple la doon positif bañ ci def négatif mun naa nag mbal ak mais loo xam ni Sénégal yi da leen ñor saf leen ci lañ ma xamee moom laay continuer quoi bañ cee dugal lu ci bokkul lu ñu ma wax lépp dégg naa ko lu baax li jël naa ko li li mu intéressé wul mi ngi à côté quoi. ok seen lañ jox guy gi bañ xamoon. guy gi bañ xamoon dina ñëwaat ci qualité bëre xeex lépp. di ñaan yàlla rek yàlla suturaal ñu ba bis ba yàlla lafal ñu cat ñun ñeenti mbër yëpp kenn bañ ci am lu la kenn ñëw indi lu bees tax arbitre sifflé mu metti lool yàlla may ma ci ndam parce que tamit lu yomb baaxul. mais li ma si jaaxal ñoom trois ñëpp tolloowuñ poids tolloowuñ taille léegi yow nag nga fas yéenee gérer lool. non Ameth yow technicien nga loolu boo ma koy laajaat loolu yàq wax la rek man bëri naa fekk mbër ki ma bëreel bi passé cent nangam kilo la man ma nekk cent nangam kilo double ko. bëri nañ ma am nu naa fi mbër moo xam ne man moom ëpp moom ëpp nees bi muy bëri moom cent quarante nangeem kilo la man ma nekk cent trente yooyu du garaaw. mais par exemple xam nga combat yi par un mois la mais est-ce que premier combat boo su ñëwee jël si pois wala nga wàññee ko si sa deuxième combat nga ki war a bëri gën a jël poids. ci diggante bi est-ce que. technicien ñoo ma yor mais bu may jóg États-Unis incha allah ñaan naa yàlla am cent vingt cent vingt cinq bu mu ñëwee lu ma technicien yi teg rek ma tegoo ko quoi Mor Fadam Ngaye Loum Pambaay Pambaay porte mooy wax ci école bi porte parole ñoom ñëpp xam nga kenn ku ne li nga wax ma déglu la waaw mais du caagani waaw ak lay géey sama booy ñoom bolo kenn ku ne am na looy def ci man vivacité raparité technicien yëpp am loo def ci man ma géré ko mais du ma gànn kenn lépp laay dajale nag voilà la ilaha illallah. napp napp nañu tàggat jëm bi génn jëm génn nañu. <laughs> mais grand li baax na sa mbërëb ma la mbërëb. xam nga daa jàll ma feebar daa jàll ma feebar. oui mais man saako yor daa jàll ma feebar ah. parce que xam nga mbër boobu gars yi bëgg di génn quoi. jamono la yor fan mu jël si noonu. gars yi naan collègue rek yooyu moo leen baax ba ma ñëwaat. waaye nag. muito de quê? Ao futuro. Como se deu? Zé, temos uma parte. Se bonito. Après, comment combat quoi. Você está dans le moment. C'est pour l'entraînement pour la SAF. Il y a d'autres coups de terrain. Ouais, cette préparation vite, vite, vite de combat. C'est quoi un moment. Traitement là. Janvier. Janvier, février. février, mars, avril, c'est de la belle combat là, Inch'Allah. Mais n'est pas inquiétement pour la trois combats, non, non. C'est battre Inch'Allah, trois victoires. Mozati Télévision, c'est le Dieu qui donne une dame. j'ai qui bat trois combats. le Sénégal, tout, ma France. Ok? battre Bat, Z3, il a victoire, Inch'Allah. C'est pas complexe, c'est pas réfléchi c'est pas évident, c'est pas question effraction. z battre 3 combats, Inch'Allah. Retourne les aiguilles. Il y a une de combat à derrière, Inch'Allah. Ok Tu compris Tout le demande, tout le Sénégal. Hein? Vous savez, la retour 4 avril, Inch'Allah. Le niveau, niveau, niveau, niveau, ça. C'est battre 3 combats, Inch'Allah. Dans devenir Dieu qui arrivera dans Inch'Allah. Ok C'est ça le problème. Eh! Eh! Moi, j'ai gardé un visa, ton combat visa pour moi. C'est la c'est l'encadrement, c'est la famille, le de Thiénaba y a toute l'équipe pour moi te présente tout derrière incha allah la 4 avril ki battre sa éducation incha allah waa Géejawaay laay woo waa Géejawaay bi yëpp parce que waa Géejawaay ñoo moom tournoi bi quoi parce que Géejawaay man am na fu ma teg je suis bien am na fu ma teg xam naa ko bu baax moo tax ma bi yalwaanu ma damaa ñaan ñëpp ku ci am xel xalaat doole ñëwal nga ne ma guy gi lii laa bëgg dama lay déglu je ouvre porte tëjalu ma kenn sa porte sama porte di nuyu borom tawfeex di nuyu ñëpp di woo ñëpp ne autorité Guédiawaye bàyyiwuma kenn su ma yaay Wally Sarr laa ko njëkkee ñëpp doo ko topp ci ginnaawam di nuyu ñëpp nag bàyyiwuma kenn ok vamos ok sama fans club bi président bi wëcc wëcc sama président bi ñëwul woo sa sa boy yi que sama fans club mobilisation bi affaire yooyu moom daa ñëmul télé nag. ñëmul télé moom du def dara. suma lépp la ko moo tax bi ñëwee taxawal ko dooleel moom moo la mën expliquer je suis élève la quoi élève la. explication explique explique wa explique. loolu kan nga bëgg mu njëkk bëreel koy wax yow. man nag Tapha laa bëgg. pourquoi nga choisir Tapha Tine. parce que moom lañ soxla te moom lañ bëgg a wan suñu bopp. waaw ah, yéen moom bëgg waaw mais je koy jorul tirage je suis prêt léegi sa jar na kon gars yi di parce que man li ma jot ci ay message parce que booy am na ñu jël cent mille du ci dugal ci loolu man cent mille am na ku leen jox cent mille ñu dugal ci pour ay vote yooyu nee tafaatin tafaatin tafaatin waaw façon dinañ xool su fekkente ne ñuy wax tafaatin moo ëpp ñu jox la tafaatin bu fekkente ne ñu wax zoso ëpp wala ñu wax ama ñu jox la kooku waaw yow wax nga leen fu ñu war a nu ñu war a def ba nga tasante tafaatin kay jeex na. jël nañ ko di woote xaw ma naan tafaatin lañ bëgg affaire yooyu xaw ma nu mu demee noonu. tey damay recharger cinquante mille crédit. lépp di ko envoyé ngir guy gi tafaatin. maanaam bu ñu ko waxee publicité la quoi fa lay ah. liggéey boo ko waxee dina ko def fa lay liggéey moom ñëpp xam nañ ko bu ñu ko gisee dañ ko xam mais bu ñu ko waxee publicité la direct kii bu mag la notable bu mag la. mais tamit di woo waa Géejawaay Biafra Comico Asegna Njaareem Cenaba ñoom ñëpp ñu ah, voté Thiès ak lépp ñu woo ñu xam ne combat bi tournoi bi Géejawaay la war a des warta dem feneen ñoo ko war a moom ñun ñoo ko tàmm di jël te dafee war a des. bu ñu waxee loolu xam nañ bu baax lu tax ñu wax loolu kon dañuy ñaan kon tournoi bi des géejawaay di woo ñëpp. incha allah di wax sama fans yi maa leen i xaar man xam naa ne namm ngeen ma namm naa leen di jégalu nag lépp loo xam ne guy gi def na ko ci erreur mi ngi jégalu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp lu ma def ci lu baax di xam ne sunu borom la mais mënuma mais di jégalu ñëpp nag.